da nga stigmatiser ce que Malal a fait mais c'est pas je l'invente rien c'est que ce euh, premier tour de table bi avant may dellu ci kon euh, monsieur mu wax ñu un peu. Euh, lu mu lu mu ñu mën a leeral ci li Malal ak Charles. maa lay sant li ñu joxul parole lu bari mbirum dorogu daa neexul waxtaan ndax <laughs> daa amul njëriñ. waaye li ma ci mën a wax daal Sénégal yëpp ak lay laajte. Sao Paulo Sao Paulo. vous yow liggéey nga si lu Lula libération Lula. liggéey naa ci mais il faut am euh, félicitation. félicitation <laughs> parce que nit ñi waxuñu ko. waaw liggéey naa ci il faut que ñu wax ñu xam loolu. waaw liggéey naa ci libération Lula te Sénégal war na si am. au nom au nom de la ma voilà maa représentant CNTS ci ci. ci Congo Brésil pour ñu libérer Lula. loolu bokk na ci ma. félicitation le camarade Modou beneen bi. Euh, kii euh, der. waaw vraiment wax waaw voilà. maa ngi damay bàyyi ma ziar. Ah, aussi man de du ma dem du ma dem Brésil euh, te dem fa Copacabana. man de du ma ko def. da maa ngi gë maa ngi bàyyi ma ndox ak jullit <laughs> ah ci ci gàmmu gi ñu génn. ndax gàmmu feetu lislaam la. loolu fa technique la feetu lislaam la. <laughs> feetu jullit yi sedd xol la. Mhm. donc bu amee. Sénégal ba jàll war nañ mën a ndokkeel jullit yëpp mais Sénégal wax dëgg yàlla kenn mënu wax gàmm aussi te tuddoo maa ngi ziar sama mbokk jullit demoon Tijaan yëpp ndax bu Tuubaa Tiwaawan ñëpp fay dem euh, Tijaan yeeg jullit yeeg ñëpp ñu demoon gàmm ji ak ñi gàmm feneen euh, di ziar xalif général des Tijaan sëñ Babacar Sy Mansour sama xarit sama sëriñ sama xarit moom sama na ko donc moom suma sëriñ la malheureusement dem naa këram dimanche di ko ziar ji Tiwaawan Tuubaa ak gàmmu xëy dem Tiwaawan bi ñëwee fekk mu fatu gisuma ko maa ngi yendu kër sama sœur sama sëriñ soxna métu si maa ngi koy ziar di ko ñaanal yàlla may ko donc maa ngi maa ngi maa ngi euh, soxna da baax mm-hmm. maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi ziar waa Tiwaawan yëpp di nuyu sëriñ sëpp di ñaanal yàlla ñu yàgg ko fete yàlla la bàyyi fi xalif général bi fi nekk mu yàgg fi te wér bàyyi fi xalif général ci réew mi yëpp di ziar jullit yëpp di ziar wax wax di yàlla képp ko xam ne mbal na guddi rasulullah te xam si moom yokk rek moo ci nekk der xam nga bu ma duma drogue li may njëkk a def d'abord c'est de féliciter la douane sénégalaise jiite ko seen njiit le directeur général de la douane maa ngi koy félicité parce que wax dëgg yàlla nag euh, dañ naan boo war a ay jaaf fan yi moom def na réseau exploit yu rëy rëy ci ci Sénégal jàpp nañ ñu bari ci port bi donc yooyu lu am solo la di gërëm police bi di gërëm gendarmerie di gërëm ñëpp parce que boo xoolee mooy yi ñu am ak résultats ñuy joxe nga xam ni am nañu xam xarante am nañu am nañu am nañu fulla am nañu professionnalisme am nañ lépp malheureusement pays bi ñu yor Afrique amuñu moyens yi tubaab am amuñu doole ji ñu am mais am nañ xam-xam be xarañ bi ba mën a aar sunu sunu population di gërëm sa invité aussi te lu mu expliqué. xam nga mala euh, kii euh, der man fi ngeen yóbbu wax bi na ko yóbbu foofu ay dafay def Europe ak dafay def nangam nañ taxaw fii ci Sénégal d'abord réew mi lu commencé am ay délinquants ay délinquant économique drogue yow mënoo koo jaay man mënu koo jaay aw ma doole ji aw ma xam-xam man mosoo gis àll yéen man dama ci sa yàlla ba ko jox ma yaakaar xaw ma la la ñu xëy jàppaale wax ndax xaw ma ko man yàmba daal laa mos a gis mais lu yàmba xaw ma Sénégal yu yàmba lay xamoon non c'est la vérité lu Sénégal yàmba lay xamoon foo gisee yàmba oui foo foo gisee yàmba non am na ay pion tamit saa benn xar boo xam léegi daanaka ab imam la sëriñ mag la bi nekkee booy moo daan tox yàmba léegi nag sëriñ la quoi vraiment ba nga dëkk Sandiara ah, ñu ngi euh, ah. ubbi benn usine bu ndaw Sandiara ah, usine Sandiara kilifa la ñu naan tudd sëriñ la Ibaad jawar Ibaadu la am <laughs> Ibaadu sëriñ yëpp waa léegi léegi ci moom laa gisee yàmba léegi <laughs> non mosul woon doon ko sama kanam rek booba xale la ñu ah. Hmm. ah. Sadio léegi nag Serigne dafa ñuy course di yor viseur Serigne <laughs> mais ngan nit soxkat yi xam naa soit na woo saaga woo sa wax <laughs> donc euh, kooku laaj sot yàmbaal man bu ñu weex xale yàmbaale xamoon <laughs> ak i crack waaye yooyu héroïne yooyu baadool li nga dëgg la du ko jënd hmm. baadool du ko jaay hmm. te réew mi dañ ci war a taxaw. gouvernement Sénégal jël ay matukaayam bañ a protéger kenn. mënu ma ci réew moo xam ne ay ponkal lañ ngay dégg ñaa ña ngay blanchir xaalis. ay ponkal lañ ngay dégg ñaa ña ngay si Cissé Lo fi la taxaw ne Cissé Lo fi la taxaw ne ñiy ponkal kilifa yi mi ñoo dugal drogue ci réew ma ko wax. buñ ko def te ton ñi ñi suy nit ñi ay milliards kan moom mooy yooyu. ba loolu na ko def. Hmm. non mais c'est il faut ñu laal affaire bi fu mu nekk. baadoola yi defuñu ko kilifa yi ñoo koy def ñooy jaay drogue bi ci réew mi. Mm. c'est ça la vérité li may ñaan police ak gendarmerie ak douane ñu bañ a yem rek ci jàpp rek yem fa ñu jàpp ñu topp ko topp ko topp ba xam kan lañu ak ku mën di doon ñu tëj la parce que drogue ku koy jaay reykatu nit nga assassin nga. Mm. reykatu nit nag gën mënuñu ëpp yërmande yàlla yàlla ñu ëpp yërmande fuuf teelaa ni ku rey nit ko rey kon ku rey dañ laa war rey. Mm. waruñu nekk fi ñuy négocier drogue drogue baaxul ci réew taxaw fi naan wéy dafay jaar fii France la jëm ñun loolu xam nga suñu réew la dugg. te ñun mënuñu nekk réew moo xam ni yàlla daf ñoo natt amuñu doole amuñu dara. ba pare ñu nekk une population très jeune. lu ëpp bi téeméer boo ñaar fukki yi ay xale lañ waruñu fooy loolu. wu ñu fooy ñu taxaw wax ci rajo yi rek mooy jàpp nañ vingt kilos jàpp nañ trente kilos léegi lañ jàppul nag xam nga ñaataa jàll. moo ëpp sax. xam nga foo foo jàpp kilo jàppal ni fukk dem na fa. bien sûr. fan lañ koy jaay dañoo defal njort rek ne dañ koy yóbbu. dañ koy yóbbu dañ koy yóbbu dañ koy yóbbu France kan moo wax ni gis ñu ne Afrique dañuy Sénégal waaye di am euh, pétrole ñu ne yàq jeunesse bi yëpp ñu nekk ay dof bañ mën a utiliser bañ ba ëllëg bu ñu leen joxe arme ñu mën a xeex entre ñëpp. Mm. on une guerre civile au Sénégal. à cause bi merci nous sommes des jeunes bugg ay toxicomanes. ku toxat ku ku ku ku drogué ba nekk ci diggante dof ak nit kay jox la arme pour xeex day yomb ni Sénégal lu sud chance su Sénégal mooy yem ay ay kilifa Sénégal dafa réew la moo xam ne koo gis muy dox am na koo xam ne bu ko waxee bàyyi mu bàyyi ko defal mu def soit nga nekk murit ñi tijaan ñi laayeen ñi xaadir ñi chrétien ku ne am nga kilifa goo xam ne bu taxaw man tey bu ma gën a gëm ci àdduna gën koo bëgg moo xam ne général de murit tere ma ko keneen noonu keneen noonu loolu xam nañ ni xale yi mel nañ noonu kenn moo leen dara est-ce que j'ose poser des questions. est-ce que am nañu fi doole bi pour jaxase bopp xale yi tof loolu leen. ba ëllëg bu Sénégal amee économie xale yi mën a xeex entre ñoom. parce que fi mu ne yéen a ngi gis wax yi wax ci kii Sénégal dafa ag agressif def xoolal léegi wax yi dafa agressif. Mm-hmm. violence bari na ci réew mi. Mm-hmm. njuut njaaj. Sénégal da nu nga dégg fu ñu ay blanchiment d'argent ay milliards man li ma dégg nu ma dégg ay trente milliards quarante xaaral bu jàllee mooy ñu torox maanaam loolu sax moo bari daanu te yéen ngay daal jàpp est-ce que amul ñoo jàppul je me dis est-ce que ñàkk xaalis ci réew sax du loolu waaw ah. non si il faut se poser des questions bu baax non ban rapport. am ñàkk xaalis non blanchiment émission bi. boo blanchiree xaalis ma attaque boo blanchir attaque bu 32 milliards jàlloon suñu tey ci Sénégal ñu blanchir ko. Hmm. day feeñ économie Sénégal. mais du loolu lay simple. mais le le le boom de l'immobilier au Sénégal. on se pose pas de questions waaw kay wax la Bouba li ma nii affrontons le sujet bi dafa dafa dafa réel lan la ci jublu. Mm. ni mu bëree jamono toll Sénégal mënu ko woon. Mm. affaire en tout jàpp yu fréquent yu bëri ni daaw fi am. Ah, bu dee man daa bëgg a effectivement léegi dafa commencé toll kii ba xam ne il faut réew pour mu mën ko il faut se poser des questions. d' accord mais day c' est l' objet su porte la buy transhumé man je dis non est que jëm suuf Sénégal. ok ndax lu fii lañ ko dugal. oui par Djibril. Oh. je pense que ne sujet bi euh, gan gi campé na décor bi bu baax a baax ci. campé débat bi ci euh, aspect yi nga xamante ni yëpp daf ñu interpellé mais li métti rek moom mooy euh, que xëy na ñun ñoo jël choix wax ci pour que mu mën a nekk débat la presse en parle mais est-ce que autorités yi jël nañu pleine mesure ak mesurer enjeu yi ba mu ba mu mat sëkk pour bañ a nekk ci réaction mais nekk ci benn benn une une une démarche beaucoup plus. Euh, proactive mhm. benn beaucoup plus même même didactique ak pédagogique nga xamante ni dañ yee nit ñi sensibilisation beeg éducation bi ci li nga xamante ni xew na ñu koy dégg te xëy na xamuñu nu mu demee. Mhm. loolu mooy premier aspect bi beneen bi mooy euh, souvent li may gën a interpellé damay wax ne quand est-ce que les cerveaux vont tomber peut-être que contrôleur bi mën na si ñëw euh, ak ban relation la ñu am. ak réew bi nga xamante ni foofu la ñu wax ne foofu la jóge euh, dans le cadre de la coopération parce que du ñu gis. Mm-hmm. Euh, benn indignation boo xamante ni xëy na jóg na euh, fi nga xamante ni foofu la jóge te bu doon réew boo xamante ni xëy na am na taxawaay bu am solo dina interpeller réew boobu nga xamante ni jàpp nañ ne foofu lay jógee souvent di ñëw fii te xëy na coow du jóg ak beneen question bi ma am mooy réew fan lay toll bañ ne narco état la. fan lay toll yan critère lay amee ba ñu ne narco état la <clears throat> ba qualifier ko noonu beneen bi mooy euh, CEDEAO lan lay xaar ci organisation boo xamante ni parce que bu ñu waxee ne Afrique de l'Ouest zone de transit la euh, d'abord ñoom en terme de politique ak tey euh, lan la ñuy dëppoo parce que bu ñu ne jàpp nañ fii jàpp nañ tel état jàpp nañ c'est très bien mais est am nañu stratégie de lutte boo xamante ni tey mën nañu def face ak loolu am une réponse boo xamante ni réponse euh, bu bu bu concerté lay nekk euh, leneen li mooy euh, en terme d'image parce que tey jii booy dégg sa réew ñu fay dégg ay munitions yu réer mm-hmm. ñu fay dégg drogue di fa dégg blanchiment di fa dégg faux billets yi ci benn jamono benn moment benn contexte peut-être que dafay toucher suñu sujet bi ñu war a aborder beneen réew beneen puissance occidentale ñëw ne dañuy def sax séminaire foofu intergouvernemental pour waxtaan ci paix et sécurité te lii nii nekk ay mbir yoo xamante ni c'est intrinsèquement lié ak loolu. Mm. est-ce que amut loo xamante ni dañ mbir mbir yu ñuy waajal est-ce qu'on nous prépare pas à quelque chose. <laughs> alors balaa contrôle di tontu loo bëggoon wax. li ma a wax mooy. Uh-huh. dafa am loo xam ne dañ koy fàtte ñun ñëpp xam nga yow da nga laal léegi. problème mu Bamako ak kii kii nooti. waaw Mali Mali ak kii Mfam nooti. waaw c'est le man je pense que aussi. sunu réew moo ñu war a gënal ku ne. Hmm. moo ne dans un pays comme le Sénégal ay réew wër la. Hmm. mu am guerre. Hmm. am drogue bu fa nekk. situation armée yi nekk fa. nga ubbi nga ubbi say frontière. mais yow le kañ protocole boo xam ne bu la ku mu neex ñëw ku mu neex dem mais réew dañ koy protéger aussi.